loolu amoon Sadio Mané moom. Mm. di ko ñaar félicité rek. Mm-hmm. di ko ñaanal jàmm yàlla na yoonam egg. amiin que xale la boo xam ni exemple la à suivre icône la. tout à fait. ak Sadio la. Mm-hmm. won na leen yoon bi. Mm-hmm. jiitalul jigéen jiitalul xaalis jiitalul dara. wallaay ak am solo li la jiital. yaayam papam këram. ay mbokkam dëkkam. te balay def fenn def na dëkkam. lu kenn mënul wax. Mhm. lu kenn ñemewul lu kenn mësul def. lu kenn mënu ko weddi ndax c'est pas lu kenn mënul weddi. Mhm. mooy lu kenn mënul weddi. wallaahi wallaahi. donc un gars à xale bu ñu war a ñaanal mu gudd fante yàgg fi. te it xale yi jàng ci moom. ko cité en exemple. xale yi jàng ci ñoom cité ko en exemple. ñu mhm. ñu génne ko propulsé ko aussi. parce am na loo xam ne boo ko waxul kenn du ko xam journaliste am na yeneen yu ñu bari yu ñuy wax am na lu ñu war a wax te waxuñu ko. il y a des des exemples à suivre. Mm, mm. des gens à écouter. Mm. des gens à ne pas écouter. loolu mooy àddina. loolu presse bi daf ci am liggéey. dafa presse bi bu baax a baax. bu baax a bu baax li ñuy wax seen rang ci ci kii bi. troisième xaw ma naka lañ koy waxee. buñ ko doxalee day baax de. mais nga gis lii ne jub la nga wax la la safaan wa te mu na sax li ngay wax amul. pour sa poche wala pour sa intérêt wala pour sa nangam looloo fi xew. te du yoon mais loolu du dëgg. dëgg la parce que ça n'avance pas et qui n'avance pas te ku nekk chacun à son jour na kenn mun ci dara. comme ni dëgg yow booy wax dëgg di nga mës am bés nit ne walaay dëgg la wax ñëpp tàcc. mais soo waxul dëgg dina mës xëy ñu gas la suul te kenn du wax. mu kalaate te muy dëgg. tey de seen bés la yaay. j'aimerais bien. Mm. qu'on fasse attention. surtout que ñu dal. Mm. que ñu positif surtout que ñu ñu xam li ñuy wax xam li ñuy def te yàlla tax. man moom comme un cœur. comme damaa bëgg sport chaque jour sama cri de cœur. un cœur il faut avoir un cœur mm-hmm. soo amee un cœur d'or dala du la metti mm-hmm. lu waaye def nga supporté ko. nit day muñ nit day maslaa nit day tëdd ñu war ko. ci jàmm te yàlla dalay fay. Mm-hmm. et ça c'est mieux. yàlla buy fay du tàggu kenn. foofu rek laa ci yem. merci